C'est pas la C'est pas la peine que je traduise en Wolof. Je pense que Abdinar le fera. Etienne après Abdi. Et les autres vont compléter. En tout cas, retenez bien que monsieur le procureur a fait œuvre de broderie. ah dafa maanaam maanaam maanaam euh, tailleur euh, tailleur berninaa la daf doon def ay broderie daamina da doon parce que lépp li nga xam ne dafa amoon ci ay événement euh, maanaam dossiers yi fi am yëpp enquête moo xam dañuy wax ay forces spéciales ay ay ay ay commando ay cocktail molotov yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yooyu yëpp la dajale ñëw yekkal ko Ousmane alors que ñoom seen enquête yooyu wax nañ ni arrêté nañ diw diw diw diw nee nañ ñoom ñëpp waa Pastef la en fait ils disent yooyu yëpp mën nañ ko rattaché ci Pastef waxuñu sax ni waa Pastef la dañu ni rek ça converge vers le Pastef dirigé par Ousmane Sonko donc noonu la ñu jéem a justifier naka la ñuy taqalee Ousmane Sonko ci loolu yëpp xam ni lii dafa jóge fii lii jóge fii lii jóge fii ñu jël morso yooyu yëpp dossier yooyu yëpp euh, daami naa ko daal di koy euh, ñaw ba mu ba mu rafet ah, ñu bëgg ko jébal mais loolu ça ne peut pas marcher parce que sénégalais yi kenn mënu la tax donc euh, bu nee nañ defar lii sax ñu jël yëpp dajale ko procureur ni moom daloon xaar léegi pour attaquer Sonko ci loolu te beneen sénégalais boo xam ne bii def nga lu tuuti rek def nga déclaration bu ndaw gis nañ ko ñoo ñëpp jàpp nañ leen ñu si bari ñu ngi si kaso bi pourtant ñooñu ñi ci ëpp ay 2023 ay mars avril mai euh, lañ leen jàpp kii nga xam ne dañ ni depuis 2021 la mu daan wax yëpp en 2021 2022 ba 2023 ñu ne loolu lépp dañ ko dencoon ba léegi léegi la ko procureur di soog a génne est-ce que loolu yenu na maanaa loolu la sénégalais yi war a wax loolu la ñu war a xalaat parce que li ñu bëgg rek mooy ñaari yëf benn bi mooy tere ko mu bokk ci élection yi te loolu mbir yàlla la ñoom mënuñu ko buñ ko mënoon ci ñaari affaire yi ñu njëkk a def ñu xam ni du sotti ñu créer bii nag ñu ne ko yow la nga waxoon ak la nga defoon depuis 2021 ba léegi loolu la dajale ci lañ lay poursuivre bi yoon nag état moo lay poursuivre donc boobu mooy benn objectif bi tere ko mu bokk ci élection yi ñaareel bi mooy la nga xam ne suñu confrère Juan Branco bindoon na ko CPI bind ko ci plainte bi mu déposé France lim ci waxoon yëpp yëpp yëpp yëpp li mu dénoncé woon yëpp ñi nga xam ñoo doon tiire ci ci manifestant yi di rey ay nit di di yàq ay kii ak yi ñu doon taal yëpp ñu ne lépp alors responsable yooyu xam ne dañu tudd seen tur Juan Branco daf ko tudd euh, ñu ne loolu lépp nag euh, waa Pastef loolu lépp nee nañ dafa jëm ci Pastef mën nañ ko taqal Pastef parce que waxu waxuñu ne Pastef moo ko def dañ converge tout ça converge vers le passé maanaam loolu lépp bu la jëm Pastef nag Ousmane Sonko moo ko Ousmane Sonko dañuy loolu waxu procureur loolu la ñu koy tontu nag ñu ko loolu mënta nekk te loolu du nekk waaw te moom daf ñu dafa tàggu ay kilifaam te li mu doon liir sax gis nañ jafe-jafe yi mu doon am pour liir ko donc ñun dañuy yaakaar ni loolu moom sax xëy na bind ko xëy na bind ko dañ ko ko bindal jox ko muy liir loolu la ñu bu ngeen ko seetaatee bu baax di ngeen gis ni wax dëgg yàlla euh, lecture bi jafewoon na lool ci moom mais mën nañ ni daal euh, fii moom daamina munu fee munu fee dox jërëjëf